waaye grand Samb ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ndam la ñu ngi lay fay bu baax Fall ñu ngi lay ziar di leen masawu coono di rafetlu seen liggéey bu baax a baax seen télé bi yàlla na ko yàlla def ay télé télé yu bare bëri ci barkeel bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin mais ñu gis tey euh, Pikine ñu ñëw fii si open presse mu woote nga gis li nga xam ne ni tey jafé nañu gis ko ci open press boña mom en tant que ambassadeur de non à la violence tay mu woté ñu organiser ko organisation bu jaar yon ba bari teg ci ñu luñu gëna jaaxal ñu gis ci podium ñoo gis turbine ci biir open press tay ñu gis fi lu lu rafet dal loy wax ci loolu wa mais avant tout boña suñu rak la na tay ñu buñ demee ba tay suñu place mom moko waral ndax nit ku baax la amana li nga gis ni li lancement la rek diko ko ñaanal yàlla combat bi mu jup si nii dafa ko dam na bo ñaan dafa nek mbër bo xamni tankam tankam luul kenn maanaam tour loko ko day ñew c'est la première fois nga gis open press mo am podium ni ñu tok def tek yaru maanaam li ko war a borom bis bi mo tollu fofu ndax bo nit mom no mën mal ak sa bis non lay toll mais diko ñaanal yalla moy suñu rax di suñu xarit combat bi dimanche la Pikine wa yépp di xamni lepp deug la ndax ñun ñi nga xamni ñoy ñoy Pikine ñëpp ya, dugg ci combat bi te du yomb ya, incha allahu rabi nan ko bëggee noonu lañ koy defee ci kattanu borom bi. mais nan lañ mën lan lañ mën a xaar ci yéen dimanche. waaw mais dimanche Pikine waaye ñun ñëpp xam ñëpp xam nañu Pikine waa day sañse sol lu rafet lu neex ñëw ñëw ñu yëngal ci kaw ba yëngu. boo ñaax gësam ci suuf ci kattanu borom bi bu jeexee jeex na nag moom di turuxu turuxu. waaw bu jeexee jeex na kon jeex na. waaw kon baax na kon ñor taa ba gën gis yëngal. maa la wax loolu nooy nepp comme éponge rek. ok dee na jaajëf wa ba tay ñu ngi fii nii ci pigine fekk fi ndaanaan champion yi nga xamni jamar yi nga xamni yeen pigine rek leen ñor wa vraiment vraiment et puis nak mu nek suñu xarit doon suñu copain doon ko xamni vraiment moy li grand sambo wax rek mom mo bax vraiment doon suñu xarit doon mbeur mo xamni mom machallah xartu ñepp la mo waral teway bi waaj nan nak bu bax waaj ngeen bu bax legi xam ngeen waaj ngeen di bëral baax Tapha Tine waaw Tapha la rek comme yeen mbeuri tak ngemb mais waaj day door wa mom bu korul du door bu jappul door et ñun nak vraiment vraiment xam nañ ki na am ndax moom boxeur la boña lolou pis la ci mom machallah ñun ñu xam xam na ni boxeur la vraiment boko jappul doko dor et puis tabar na maytu sax ñu ni dor ko na maytu na maytu bu baax kon mu ngeen da ngeen ni dor non boy bi day dug ci ak central dor ko ku man ma lax lii ah kon dimanche di yomb de dina mel ni tege tege mais loy di wax ci gaay yi non à la violence wa wa surtout ça nak bo xolé moment bi ni moment Sénégal même bu dul làmb na trop trop trop violence donc ñi ngi woté nak ñun ño recevoir wa vraiment ñun ñooy wax ñu dal jamm def ndank ñu ñew ci jamm ñibi ci jamm vraiment. à domicile bi à domicile wa surtout ça. a ah, kon baax bu jeexee rek jeexee rek jeexee jur. ba di ay copain waaw Pikine rek. wa dédé ñu ngi lay nuyu. ñu lay ziar. ya ngi am jamm wa ñu sant Serigne Touba bu wa tay ñu fekk ci len fi nga xamni moy Pikine ñu ñew si presse wu Boña Boña numéro 2 des ambassadeurs non à la violence Lo ñu mën a wax ci lolu ci organisation bi nu mu jaaré yoon non sant yàlla bu baax fek nga ñu fekk nga ñu foo ñu war a fekk ndax olof Ndiaye dina kuy wàll yaan daa fekk sa dëkk neexul ñun Pikine lañ juddoo Pikine lañ yoroo Pikine lañ màggee ñun boo ñaa du ko sono sunu mbër sunu nit la quoi man boo ñaa kóllëre gi ma yàlla boole mom man damay ñëw ba am accès si moom mu ñëw ba sama kër am accès man yaakaar naa jamono doy waar nii rek am na signature contrat yoo xam ne Lac de Guiers 2 sax maa ko yóbbu waaw mu nekk nit ku baax nekk nit ku neex a àndal ma xam yaayam xam papaam xam frère xam soxnaam xam ko bu baax mu nekk nit koo xam naqaru la àndal man ma dama ko bëgg man boo ñaa man dama ko bëgg man te incha allahu rabbi boo ñaa dina am ndam di wax yi rek nañ dal te tey. lu xew temps yi pass ku ne gis na ko te làmb dañ ko war a téye pa booy di jëli fi jàmbur yi teraanga yombul soo ko bëggee da nga koy liggéey di wax booy na dem liggéey liggéey rek ay fay dara du fay lañ liggéey xam ne mbër ñuy topp ñun mbër ñuy seetaan ñun ñii topp ñu ne na leen di seetaan ay responsable lañ te ñun nañ xam ne ñun mbëri gënu ñoo nekk responsable kon booy topp seen ginnaaw na leen woo wax ak ñoom xam ne ñoom it ay responsable lañ ku ci jëli fi jàmbur suñ la suñ la téewee danaa war loo xam ne keneen ku la xool waroo jëli fi jàmbur loolu mooy yoon di wax gars yi nag Pikine yëpp dinañ woon nañ génn jàppale booy bi ndax booy bi doomu Pikine la fii la dëkk nañ ko jàppale suñu borom defal ko dam ndax tamit booy bi naa la xam ne rafet day am lu baax de barke maam se Ibrahima Fall day am lu baax. mais yow tey loo koy digal dàqaar rek Tapha Tine ñëpp nee nañ Tapha Tine moo ko dàq xeex looy wax ci loolu Tapha moo avantage ci xeex bi. non loolu ku ko wax xamoo làmb mais bo ñaan moy xalé bo ñaan mo mën moy xalé moy daan tabadun du deureum tabadun du tous bo ñaan so amé lu mi xalaat tafet na rek ngemmam dem bayyi lu gëna waw wow nak nag mënu waxo wax. kon baana kon ñoy xaar fa dimas ñu xol tafadil ak Boy mais di jokkay rendez-vous rek. la ngay solo sol lu rafet. du arrêt soulage moom fees laa lay verre yu baax. Boy dafa dal nan. bool bool ñu ñibbi. waaw <laughs> ah, baax na léegi léegi. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, ah, ñu fekk la fii nga xam ne mooy bonne euh, presse Boy ñu gis euh, organisation bi Boy Niang di mbër bi nga xam ne ni mooy président de l' ambassadeur non la violence ci mbëru mbër yi nekk Sénégal yëpp tey ñu gis innovation bu rafet bii mu def organiser bonne presse boo xam ne jaar na yoon ñu gis mu organiser fi lu baax loo xam ne nii xale Pikine yëpp wuy si nañ ko ñu def ko ci yar. ak teggin la wax ci loolu. waaw dèjà di ko rafetlu rek parce que boo ñëwee moom bu wootee ba nañ ko mën wuy si ndax doomu Pikine la tey fi mu teg tànkam foofu la ñu xamee ko ci ambassadeur de la de la non violence kon tey bu wootee lii dañuy dañuy nangu ni rek boo ñëwaat lépp lu mu woote nii la war a mel parce moo woote jàmm ci réew mi bu ñu demee nag ba sepp ko ci mbëri nawee ko ambassadeur de la non violence c'est parce que da koo di rafetlu lii parce lii mooy Pikine. gis nga ni c'est bien organisé ñëpp a ngi ñëw toog bien organisé je pense Boy Niang moo mérité loolu. léegi loolu ñu mën a wax ci làmb ji Boy Niang Tapha Tine Tapha Tine xeexkat la day dóore Boy Niang ñëpp nee nañ day xaar day songu loolu ñu mën a wax ci loolu. waaw li ma ci wax rek comme li ma wax léegi rek mooy booñaa Niang da xam ki xam ni mbër la na ko jox li mu moom man gëm naa ni Boy Niang li mu préparé man gëm naa ni bu làmb ji bu arrivé bu sifflé dina xoon Tapha loolu laa gëm te gis naa lu mu préparé leer na ma bu arbitre bi sifflé dina xoon Tapha Tine ci xeex lay jeexee wala ci bëre gëm naa ne ci bëre lay jeexee ci bëre lay jeexee kon rendez-vous ba dimanche jërëjëf merci beaucoup Samba mais maa ngi leen di bëggee waa Samba ñu gis la tey sa teewaay ñëpp xam nañ la doomu Pikine nga ñëpp xam nañ Samba Diarra ak Boy Niang li leen boole tey Boy Niang woote fii open press ñu gis fi képp xam ne ndaanaan Pikine nga rek bàyyi nga lépp li waaw loolu moo yoon xam nga tey boo ñaan li nu bokk sax dafa bëri waaye bu dul dara dara ju Pikine moo nu yëngal parce que ñun Pikine lan dëkk Pikine lanu juddoo Pikine lanu yoroo Pikine lanu màggee tey boo ñaa bu xewle ñun ñëpp teew fii xam nga ndax Pikine rek moo nu ñor daal waa noonu la demee. mais sama taay lu xew waa koñ bi kaa xool sama ñëpp a ngi ñëw di xool sama gars yi xool. waaw mais des na. ah def na def na def na yu bëri xam nga ñu ay xale lan te dañuy liggéey rek liggéey baa ngi suñu kanam te dañoo toll ci moment boo xam ne dañoo toll ci moment prouvé donc nanu ñëpp ñaanal rek. Ah. waaw te xam ne lii ñëw moom moo dàq. waaw baax na kon si kanam incha allah. kon daf ñëw bi yoon da nga dagg billet. non moom moo dagg billet bi man dagguma billet. waaw dama ne bi yoon da nga dagg moom moo dagg. moo dagg billet mooy dagg man du dagg. combat final coupe du monde la kii combat bi combat yi fi tëgg ci année bi yëpp yi moo ci mën mosuñoo bëre Tapha Tine Ama Baldé daan ko muy bëre Boy Niang ñu nekk biir Pikine te ab Boy Niang war a bëre jeg Balla Gaye kon combat bi gis na ci côté yëpp final la final coupe du monde ci ñun. ah li ma jaaxal différence de poids avec taille moma Ya ma jaaxal. yàpp wu du dara yàpp wu bëri du dara ah. déedéet physique bu wo kong ba ak main bi bu ak bi soufflé bu ngeen tàkkalee ñaar yoon ñetti yoon dina am borom miski bu beuri bi dina épuiser est-ce que li xewoon contre Lac de Guiers na xew ci combat muy combat bu non duñu xaar lolu bi yoon. non jamais de la vie. Mbaye Moussa jamme amon na fi fekkewulen ko. Mohamed Ali bu mag ak Boy Niang amoon na fi Boy Niang bu mag amoon na fi ñooñu ñoo dàqoon a bëre sax ñooñu ñoo a bëre mbër amatul. nañ ko fi nañ ko bàyyeeg meram ba dimanche bu dimanche lu am rek ñu xam ne yàlla moom nee bu bu ko tegalee 16 Boy Niang toog ci bu ñëwee da ko naan puusal mu puus lool la wax nañ bàyyi ba dimanche. dan nga may jàngatalee premièrement Boy Niang dama gis dafa dafa dafa wàññi ko looloo ma jaaxal. mais wax ma yow yaay kat ba pare. man maa ngi la ànd ak a bëri ci Sénégal ñu def ma ci loterie nationale bi ma jaay à 74 Idri Idda Pall suivant de Pape Diop maa daan ànd moom dama yox benn affaire dañu ne la technique la technique élimine la force ndax ak rapidité tax loolu la ñu wut loolu la ñu exercer. mais ki ki ngeen éliminé moo gën a neex a daan moo gën a neex a daan jàmbaar dafa delluwaat ci ay bokkam waajaat ma ni bu nga kii la wër daan boole ko teg fu wóor lañ ko teg ñun dañuy étudier 74 ba léegi maa ngi étudier ay naanaan ngeen dama yox benn affaire de lamb ji bu bu gaawee booy ñaa koy mu jeex bu yéexet baaxul ci baaxul ci tabatin parce que un poids lourd bu bu bu déplacé wu dafa neex a bëri ñun dañuy déplacé rapidité vivacité ak technicité dañuy boole. merci beaucoup ah, waaw dellu dellu ziar di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suñu caméraman bi di nuyu équipe bu Pikine Info bi yëpp lii moom suñu télé la waaw di nuyu bu baax Ibro bu baax waaw di la ziar bu baax gis nañu sa liggéey gis nañu sa taxawaay. mais damay dag nuyo bi mm. do gis tay booy ñaa am bis nga taxaw ko kon nga don taxaw ëma so bele ba lee ngi fii ba nu muy jeexee booy di rangéraw lu wara lol loolu wax dëgg yàlla booy lam boole wuñu ko booy ñaa suma suma dom la suma rak la papam suma xarit la degol ma ak mom mu naa la ne ëpp na 40 ans neena la tisatu fallay Balde ak pap job Bosson rek la solul tisatu dogal sax sol naa ko dégg nga ki bu mako taxawul rek man jam la parce que mok ñi fi nek la man xaw dem ci ki suba nga dem ci kele man ku ci xew la rek damay ñew taxawu la ñaa dam koy taxaw ba mu xam ko parce que sa yu ko dëkkee micro sa yu limé ay millionnaire na ci tek pap sar kon man duma gëna goré gore mais dimanche noo la mën la noo la bëgg leen ci bis bi dimanche yéen ak Tapha aduna da day day duma ñaa daan li ñuy ñëwé moy supporters yi laay wax ba pare ñu xam ne ñun ak waa Tapha Tine ñun ñoo dëkk fii soo xoolee ci yii daal yi rek xam nga ne suma frère la ñoom ba Samb waa Pàqula Mbaay bu Pikine bi ñëpp sumay xarit lañu maa ngi ñaan tey bu combat bi jeexee lu lépp lu ci munti xew ñu gunge bowal bowal ñu ñibbi si jàmm man loolu laay wax mais xam naa ne man am naa confiance ci Boy Niang gëm nga ni Boy Niang day duma Tapha Tine wallaahi wallaahi watallaahi billaahi bu bu Tafatin xeexee dootu ko defati. billaay wallaay tallaay. non man booy ñaa la gis. billaay xool gisuma Tafatin man booy ñaa laa gis booy ñaa laa gis dinañ ñi di nañu analyser dañoo jàpp ni booy ñaa du booy ñaa mbër la naanaan la benn bés du ko dépassé en tout cas li may wax mooy Pikine waay nañu xam ne ici c'est waa Tafatin yi waaw waaw waaw damay dégg ñoom Samba gisé ñëpp di ko répété waxatal nga ni. ici c'est Pikine. kon dimanche noonu la gaay di ñëwé ici c'est Pikine. lolu slogan la bu tol do génnee. bu bess bu bess So démé Alassane Djigo. la lañ fa bind. ici c'est Pikine. arène nationale ici c'est Pikine la fay tak am sar tegal foofu sa baram ñu ne ma ñëw. yalla nañu yalla may ndam. ma ngi wo ñëpp. ma ngi wo Pikine wa yëpp. ñu ñëw taxaw ko. man li la xam. maa ngi gërëm tool bu baax. di gërëm nak boson, borom keur Massar borom diaspora bi di gërëm nak wa suek supporteru Eumeu se eh, Eumeu se nak Boy ñak Ama Baldé yi fa nek yeb suek ma ngi leen di nuyu bu baax sama sama sama xarit mu ngi fa nek ak soxnam ak ñaari domam wa ak gambie yi di gërëm ñep di balu ak ñep di wote no violence no violence ici c'est Pikine. Massar kenn yow. si wa keur Boy ñay ñom ñoom malik ñom ñoom Soye bu gaay yepp ngi dañoo bëgg a def ñoom ne dañoo bëgg a am lu ñu wax pour waa kër Tapha Tine damay xëcc ci sëñ sooy bu sëñ sooy bu dimanche nga ne noonu noonu wooy bawol bawol ci combat bi dimanche ah bawol bawol dañuy jàpp duma ma ñu nooy rek ñu dem ñibbi dama bëgg ngeen woo leen ci non violence bi pour pour gars yi pour pour stade bi ñëpp xam ne lamb ji kaf fooree la waaw waaw ñun suñu mbër moom lañ nate non violence kon ñun ñëpp kaf ak ree lañu fi ni dañuy ñëw woo leen ñoom ñu ñëw ñu accueillir leen ci jàmm ak salaam daal leen ci jàmm mu jeex njaxas njaxas nga ni. non bu Tafatine tey mu dee laaj lay la laa Tafatine am na problème nag ba mu juddoo ba léegi mi ngi doog am problème stade bi dox rek yegg nañ. Samba Kase doomu nday alu yéen ñaar loolu wax nga alu mu wax. non ba càmb doole waat naa la kàddu gi ba nga wax ba pare may doog a wax. ngir jëm Serigne Babacar si waxal. kon damay wax. waaw Tafatine na xam ne daal leen rek laa koy dénk dof boo gis muy dem rek am na mbokki nit loolu laa koy dénk dina xam ne booy ñaa waaj bu baax baax ak mbokkam. en tout cas li xam ne xale màgg na li ñu yaakaaroon Pikine li ñuy doom jooy suñu rangoñ fer na bi caapaatool bi ñëwee te du national international la na bàyyi loolu xel. kon bu jeexee rek jeex na Pikine Info moo ñëwoon si open press bu Boy Niang ñëw tey jëlal leen fii incha allah si kattanu yàlla desaat na yeneen plateau yoo xamante pour spécial booy Niang ak Tapha Tine si Pikine Info ak am du ay caaxaan ah jëlal ma booy.